أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom nu ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere bii di kitaabu tawxid ñuy jël tey buntu fanweer ak juróom-ñett mu tàmbale aaya alquran bi nekk ci suratu nisa aaye 62 ba aaya 61 sunu borom subhanahu wa taala di wax alam tara ila alladina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu shaytaanu an yudillahum dalaalan baciida fa idaa qiila lahum tacaalaw ilaa maa anzala allah wa ila arrasuli ra'ayta almunaafiqiina yasudduuna canka suduuda fa kayfa idaa asaabatuhum musiiba bimaa qaddamat aydiihim summa jaa'uka yaxlifuuna billah in aradna illa ixsaanan wa tawfiqa sunu borom subhanahu wa taala di ñu jaj di wax ak ñun pour ñu sax ci njub pour ñu sax ci dëgg gi nga xam ne moom la wàcce mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam alam tara xoolal te yéemu mooy unzur wa taajab yow yonent bi xoolal te waaru déggal mbir mi ban mbir mu ne ila alladina yazumuun annahum amanu ci gaa yoo xam ne dañuy woote bu guddeeg bëccëg di wax ne ñoom kat way gëm yàlla lañu ñoom dañuy wax ne fu ñu nekk ñoom ay jullit lañu waaye yow yonent bi lan moo lay wan ne ñooñu duñu ay jullit donte ne ñoo ngi julli ñoo ngi woor ñoo ngi aji màkka ñoo ngi joxe azaka lan moo lay wan ne ñii dañoo nekk ci biir mbir mi waaye bokkuñ ci ñoom dañuy wax ne gëm nañu yàlla gëm nañu li yàlla wàcce ci yow yazumuun annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik ñoom dañuy wax ne ñoom gëm nañu yàlla gëm nañu li yàlla wàcce ci yow gëm nañu li yàlla wàcce woon démb ci téere yu njëkk ya waaye lan mooy seen problème yuriduuna an yataxaakamu ila taaxut dañoo def bëgg a dem ci xërëm ba pour xërëm bi àtte leen lii moo tax gëmuñu yàlla moo tax aaya yi ñu mel ne nun sunu réew mi ak yeneen dëkk yi mel nii nga xam ne dañuy wootewu lislaam di yenn saa yi sax ñu lim benn lim ay quatre vingt quinze pour cent ay cent pour cent ay nangam ak i nangam waaye li lay wan ne du dëgg mooy aaya yi ndax ku gëm yàlla gëm li yàlla wàcce ci muhammad gëm li yàlla wàcce woon ci téere yu njëkk ya lan moo war a nekk sa pas-pas mooy da ngay nangu atte woo loolu nga gëm léegi lan mooy problème mooy ñoom ñiy wax gëm nañ lan mooy seen mbir yuriduuna an yataxaakamu ila taaxut dañoo bëgg a dem ci xërëm ñu atte woo fa ñu bàyyi yàlla akub yonentam te kat li doy waar mooy foofu ñu bëgg a dem loolu ñu bëgg a atte woo wa qad umiru an yakfuru bi wax nañ leen ci téere bi loolu ñoom nañ ko weddi suñu yàlla waxee nañ weddi laïcité masalan mu nañu nañu nañu weddi bépp atte bu dul atte yàlla léegi ñun ñu ne ñun ay jullit lañ ba pare dañuy dem foofu te duñ weddi loolu léegi dëgg dëgg dëgg ndax am mbir moomu ànd na ah ndax mbir moomu neex naa dégg ñii nee nañ ñoom gëm nañu yàlla gëm nañ li yàlla wàcce ci Muhammad gëm nañ li yàlla wàcce woon ci yeneen yonent yi ci yeneen téere yi léegi nag yàlla ne leen bu leen dem ci xërëm ba de na ngeen ko weddi ñu nag déedéet ñun dañuy dem ci xërëm bi te duñ ko weddi est-ce que kon liñ njëkkoon wax dëgg la du dëgg su fekkoon ne loolu ñu njëkkoon wax dëgg la kon lan mooy nekk suñu taxawaay ci ñaar yu des dañuy weddi xërëm bi te duñ fa dem te duñu nangu ku fa dem te ku ñu gis ku fay dem ñu tere ko ko waaye déglul yàlla lu mu wax lan moo tax gaa yi di dem foofu ak lan moo tax duñ ko weddi mooy wa yuridu shaytaan an yudillahum dalalan baida seytaane moo leen bëgg a réeral réer goo xam ne dañuy sori dëgg loolu moo tax ñu fay dem allahu akbar seytaane moo leen nam ma sànq seytaane moo leen nam ma alak seytaane moo nam réeral gaa yooyu du réer gu ndaw sax waaye réer goo xam ne dañuy réer ba faw xam nga réer léeg-léeg ci sa biir réer mën ngaa jàdd koñ jàddaat koñ nga laajte ñu ne la déet da ngay deltu ginnaaw wala am ko ñëw jàpp sa loxo ne la waaye am na réer goo xam ne ndeysaan da ngay sànk ndax koo dajal mu ne la mi ngi mel ne réer màkka rek moo gën a dangereux fii ndax koo dajal danaa la ruux yàlla ruux yàlla demal rek la lay wax demal ruux ngay dox rek ba ne karaj kenn du la ne xaw ma koo dajal boo ko ne nangam rek mën na la demal moom kenn du la wax arrièreal demal ci kanam rek léegi nag boo amee boo amul xel da ngay dox dox dox rek ba yem ci xeer yi rek amatoo foo dem rek nga tourné waat boo amee xel nag boo doxee tuuti gisoo fa nga jëm nga taxaw daan ne ah man mii fu ma jëm buur xaaral ma delluwaat dëpp mu ngoog léegi nag ñii seytaane moo leen réer réer goo xam ne dootuñu dellu ginnaaw dañuy dox rek ba dee dañuy nekk ci mbir moom ba dee li doy waar yàlla nee na wa isa qiila lahum bu ñu leen waxee ñoom ñooñu ne gëm nañ taalaw ila ma anzala allah ñëw leen ci li yàlla wàcce wa ila rasul ñëw leen ci li yàlla jox yonent bi ñëw leen ci yàlla ñëw leen ci yonent bi ñëw leen mbokk yi ku wax ne man gëm naa yàlla ndax dinañ la wax ne ñëwal ci li yàlla wàcce nga bañ ah ku wax ne man gëm naa yàlla gëm naa yonent bi danañ la wax ñëwal ci yàlla ak yonent bi nga bañ ku gëm yàlla gëm yonent kay wax dëgg yàlla suñ ko ne kaay day daw su ko yàlla woowee ak yonent bi nu mu war a def du sax warul sax dox ndànk dafa war a xëlu daw wuy ji ndax yàlla moomu muy wootewu ne gëm na ko yàlla moomu moo koy woo waaye lu doy waar mooy ñooñu suñ leen waxee ñëw leen ci yàlla kub yonentam yàlla nee na raayta almunafiqina yasudduuna anka sududa nga gis naafiqi di baare yoon bi pour kenn du dem ci yàlla ak yonent léegi nag ñun ñu toog fi yëpp ku nekk da ngay laaj sa bopp ndax naafiq yooyu di baare yoonu yàlla bi ak yoonu yonent ndax seen loxo lañ yor naan nii naan yéen ñi bëgg a dem ci yàlla ak yonent du ngeen dem ndax seen loxo lañ koy baaree lan lañ koy baaree yàlla nee na bu ñu waxee gaa yooyu kaay leen ci yàlla ak yonent la leen di tere dem mooy naafiq yi mu ne raayta almunafiqina yasudduuna anka sududa nga gis naafiq yi yor ay barrière di baare pour kenn du dem ci yàlla ak yonent léegi nag man dama leen laaj ndax barrière yooyu ay weñ yu ñu suude la wala ay bant yu ñu daaj la wala ay loxo la yu ñu def nii wala ay corde yu ñu takk yi wane ne kenn waru fee jaar lan la ah ah waaw ay programme programme lañ lay tëralal boo xam ne doo dem ci yàlla ak yonent programme ay pas-pas ay idéologie waaw genre yi xoolal tey mbooloo mi ñaata nit ñoo julliwul timis ah mu ngi nii genre dañ lay tëralal ay mbir yoo xam ne fi mu nekk nii boo doon noddu fii boo fi indi woon sudey si sax fii muy jiite timis ñii duñ ñëw taluñu ko ñii tey lu dul dugal bi yuuxu xamuñu ko mu gis nga moo nga ko suñu leen waxee kaay leen ci yàllaa kub yonent mu ne raaytal munafiqina yasudduuna anka su nga gis naa fiq yi taxaw këcc taxaw ci yoonu yonent bi ne fii kenn du dem ci sunna tuddee sunna neneen waaw gis ngeen tey kuy dund ku bëgg a dem ci yàlla ak yonent daanaka sa famille yaa fa gën a sonn say mbokk yaa fa gën a métti sa biir kër yaa fa gën a am problème fa ngay liggéeyee yow yaa fa gën a fa nga nekk yaa fa gën a dëkk bi nga dëkk yaa fa gën a keroog dégg ngeen président mu ne ku fi bëgg a indi lu wuuteeg mag yi mag yi toj leen kaabaam wala déggu leen lool lan lañ def ba ñuy toj suñuy kaabaab lan la ñuy wax kaay leen ci yàlla ak yonent loolu day tax na ñu toj kaabaab nit yow koy waxal ñëwuma rek waaye bul toj kaabaab nit ki ah yéen kay wax leen ñëwuñu rek kaay leen taalaw ila allahi wa ila rasul wax leen ñëwuñu est ce que est ce que woote ci yàlla ak yonent bi jar na ñuy dóor nit ki jar nañu dóor la lan nga def ban lay dóor waaye nag dañ leen di won ne démb ak tey benn la rek wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi alaziz alhamid mu ne fa kayfa ida asabatuhum musiba bima qaddamat aydihim summa jaa'uuka nag yaxlifuuna billah xam nga gars yi kañ la ñuy bëgg dem ci yàlla ak yonent su musiba amee rek gis nga fi bu ñu biiralee doomu nit rek mu bëgg a dem ci yàlla ah dëgg la kay yàlla moo ko dogal lii kay kenn mënu ci dara lii kay depuis ba mu juddoo lañ ko bindoon ci dëbi gis nga su musiba ñëwee rek ñu nangoo dem ci yàlla waaye bu fekkee du musiba moo ñëw kenn du nangu dem ci yàlla waaye bu musiba ñëwee nag ñu jël ko nag léegi nag daal di koy wikk yàlla nag waaw xam ngeen musiba yi nekk ci réew mi xam ngeen ko kenn du ko lim musiba yu bëree bëri ci amee ci réew mi kan lañ koy wékk yàlla yàlla moo ko dogal waaw ñëw ci yéen naan leen yàlla la léegi nag comme yow yonent bi lii mbir mi yàlla def na ko ba pare léegi na yow ñaanal ñu rek ñaanal ñu rek gis nga yàlla moo nu xam xoola aaya bi septième siècle la wàcc tey jii buñ koy wax fi mu mel ne ñun ñii la fa isa fa kayfa yàlla mu ne naka isa asaabatuhum musiba bu musiba wàccee seen kaw musiba boo xam ne jógewul ci yàlla de bi ma qaddamat aydiim seen loxo yi ñoom ñoo ko def fi mu nekk ni stade bi bu màbboon léegi ñu bëri dee lu ñuy wax yàlla yàlla la yàlla moo ko dogal gis nga ñii fii lañ waroon dee seen bàmmeel fii la nekk patatatata turururu te loolu musiba boobu yàlla di wax du yàlla moo ko dogal rek hasard déedéet bi ma qaddamat aydihim seen loxo yi ñoo ko jiital léegi nag bu ñu defee loolu ba pare nag summa jaa'uuka nag ñu ñëw ci yonent bi nag yaxlifuuna billah ñuy waat wallahi alazim ñun yonent bi rek lañ bëgg wallahi ñun ay jullit lañ wallahi ñun taalibe diw lañ wallahi ñun sëñ diw moo lañ yaakaar aduna ak allah gis nga summa jaawuka ñu ñëw ci yow yaxlifuuna billahi ñuy waat ci yàlla naan in aradna illa ihsaanan ñun lu rafet rek lañ bëgg ñun lu rafet rek lañ bëggoon lu rafet kese ñun soo gisee ñu naan ah bu kenn def nii bu kenn wax lii bu kenn dem ci yàlla ak yonent ñun xam nga luñ bëgg lu rafet ku bëgg lu rafet di nga tere nit ñi dem ci yàlla ak yonent ku bëgg lu rafet di nga baare yoonu yàlla ah ku bëgg def lu rafet di nga organiser ay caaxaan di ci woon nit ñi ay yàlla moo wax dëgg gis ngeen aaya bi dafa dëppoog suñu dund bi ko ibnu kasir di firi mu ne wal aaya zamma liman adala anil kitaabi wa sunna aaya bi dafa ŋàññ matale kacc nag képp koo xam ne da ngaa jéng bàyyi alxuraan ak sunna aaya bi duur na la baaraam képp koo xam ne da ngay wax ne gëm nga yàlla gëm nga yonent waaye yaa nga jëm ci xërëm ya suñ la waxee ñëwal ci li yàlla wàcce ñëwal nga dem ci yonent bi nga lànk su la musiba dalee boo xam ne yow yaa ko def nga bëgg léegi nag dellu ci yàlla ak yonent naan man lu jàmm rek laa bëgg ak lu rafet yow aaya bi daf laa duut baaraam aaya bi dafa duut baaraam képp koo xam ne taxaakama ila ma siwahuma da ngaa dem di attewoo ci lu dul yàlla ak bu yonent minal baatil ci neen ci caaxaan képp koo xam da ngaa dem ci caaxaan jëm ci neen aaya bi duut na la baaraam na yow ci nga bokk mu ne wal muraadu bi taaxut ha huna li aaya bi yàlla di namm fii ci loolu ñu naan xërëm mu ne walaqad taqaddama zikruhu zakar ma zakarahu al allaama ibnu lqayim rahimahullah fi haddihi littaaxut sëriñ boobu ñu naan ibnu lqayim yal na ko yàlla yërëm jiitu na mu leeral ana lan mooy taaxut mu ne tënk na ko wa annahu kullu ma tajaawaza bihi al abdu hadduhu lépp loo xam ne ab jaam def ko teg ci kanamam jàllale ko ba raw yàlla ba loolu raw yàlla ci moom loolu xërëm la lépp loo xam ne jaam bi da koo topp ba ëppal ci loolu yàlla la ci jaam boobu lépp loo topp nga topp ko lu raw ni nga toppe yàlla ak lu mu mën a doon ak ku mu mën a doon loolu xërëm la wala kooku xërëm la mu ne beneen bi min maabudin aw matbuin aw mutaa moo xam loolu nga topp da nga koy jaamu bis boo toppee nit wala nga topp dara lu raw ni ngay toppe yàlla nga toroxlu ci nit lu raw ni ngay toroxloo ci yàlla yow su boobaa jaamu nga ko man léeg-léeg ma gis nit koo xam ne ni mu toogee ci kanamu kilifa diine wala kanamu sëriñ wala kanamu nangam ni mu toogee foofu toogewul noonu ci jàkk pour julli léeg-léeg ma gis ko nga gis ko dugg ci jàkk di julli di ju tooge nu ko neex te tey bu ñu nee diw ñëw na sooy toog ban façon toog ngay toog ban façon toroxlu ngay toroxlu léeg-léeg sax nga gis ku toog ci kanamu kilifa gi simi mbaxnaam tëgg ci suuf ba kenn du gis sikkim bi boo nekkee ci kanamu yàlla ku nekk ci jàkk ci kanamu kan nga nekk ah ban yar nga am ci jàkk ji ci néegu yàlla gi ban yar nga fi am ban teggin nga fi wone lu tax bi nga toogee ci kanamu nit kee nga toroxlu noo xam ne ku la fa fekk danaan ah sa waay kii moom kii de vrai taalibe la bi nga duggee jàkka ji noo def est-ce que def nga noonu barab yi ci àdduna yàlla jàkka la ci gën a bëgg ku dugg ci jàkka ganu yàlla nga ndax ku moom jàkka yàlla moom jàkk kon ki dugg ci jàkka ganu kan nga ganu yàlla nga moo tax yàlla nee na ku dugg ci jàkk rek sama gan nga te man képp ku ma gane ma teral la képp ku ñëw ci man yàlla man yàlla ma teral la mara ngeen dégg ñu ne man daxalahu kaana aminan ku ci dugg rek am nga sécurité wa man daxalahu kaana aminan jàkk ku ci dugg am nga sécurité am nga kóolute ganu yàlla nga te yàlla nee na man ku ma gane ma gana ma ganale la kon mbokki jullit yi taaxut boroom xam-xam yi firi nañ ko ci firi bu leer nañ mooy mim maabudin ku ñuy jaamu aw matbuin wala ku ñu topp aw mutaa wala ku ñu roy ñett ñi kese la saa yoo bàyyee yàlla wala li yàlla moom nga dindi ko nga defal ko am mbindéef wala nga defal ko ab su boobaa yow dugg nga ci aaya bi fa kullu man xaakama ila gayri kitaabillah wa sunnati rasulihi faqad xaakama ila taaxuut allazi amara allahu taala ibadahu almuminina an yakfuru bi képp koo xam ne da nga attewoo leneen lu dul téere yàlla da nga attewoo leneen lu dul sunna yonent bi nga dem attewoo ca xërëm ya nga dem ca tribunalu laïcité ya nga attewoo fa nga bàyyi jaami yàlla yi nga bàyyi li la yàlla wax nga bàyyi loolu nga xam ne moom la yàlla digal way gëm yàlla yi yëgal ne yow weddi nga alxuraan ak sunna liñ la waxoon nga weddi ko loolu yow da nga kaa saxal da nga kaa nangu fa in tahaakama mu ne fa inna tahaakuma laysa illa fi kitaabillah wa sunnati rasulihi atte nekkul kenn waru ko def fenn fu dul téere yàlla ak sunna yonent bi fa inna tahaakuma laysa illa ila kitaabillah wa sunnati rasulillah atte warul nekk fenn cib jullit di ko def lu dul ci téere yàlla ak sunna yonent jullit saa yu démb benn démb benn waaye daf ma woo ay 4 heures mu ne ma maa ngi nii ci oto damay maye ji sama mag bu jigéen waaye dafa am lu ma jaaxal dañ ne ma dix-septième jabar la nar a nekk dix-septième jabar ma ne waaw mu ne moo tax ma lay woo léegi loolu man lan moo ci sama taxawaay ak lan laa war a def bu fekkee ne loolu dëgg la ba sëy bi bu ma ko takk ma ne ko kan moo leen waaj am na dix-sept jabar mu ne ma soxna si ñuy waaj a takk moo doon waxtaan ak sama soxna wax ko ko ndànk nekk bu ko kenn yëg soxna sama soxna wax na ma ko ba pare dégg naa encore ci dëkk bi ñu ne waa ji am na 16 jabar su takkee kii mu nekk 17 mu ne ma te ñii ñaan ñi ngi kër ga di ma xaar maa ngi nii man la ñuy xaar ñu ngi may woo sànq ba léegi ma ne ko boo yeggee ne leen yow yaay kilifa ku jigéen ki yaa koy maye ngan leen jullit bu jigéen bu ñu koy maye wala ñu koy maye dañoo war a laaj ci ay mbir ci moom suñu paree ñu laaj ku góor ki ma ne ko boo demee laajal ku jigéen ki ndax nekkul ci buum ba mu jàmm ku nekk ci buum kenn du ko maye laajal ku jigéen ki ndax set na ndax ëmbul ku ëmb kenn du ko maye laajal ku jigéen ki ndax lekkul xaalisu jàmbur amul ku ko ne dama lay takk jox ko xaalis toog mu toog di ko xaar ñett yooyu bu amulee kooku problème am jeex na ma ne ko après nga ñëw ci ku góor gi lu njëkk laajteel ndax ab jullit la ñaareel bi laajteel ndax ëpp ëppalul ñeenti jabar ma ne ko boo laajtee loolu nag ba mu leer su fekkee ëppalul ñeent nga takk bu fekkee ëppal na ñeent nga ne ah man ñemewuma loolu ndax man ab jullit laa waa ji ne ma jërëjëf ma dem toog 6 heures mu woo ma téléphone mu ne ma ba ma yegsee lan ma waxoon laa def mu ne côté ku jigéen ki leer ma ne côté ku góor ki yéen ndax seen waa ji leen yónni ndax ab jullit la ñu ne ma ah sëñ diw kay xam nga ne jullit la ma ne d'accord kon boobu taxaw na fee ñaata jabar la yor gars yi ku nekk xool sa morom xamuñu ko ñu ne xamuñu ko ma ne ah boobu il faut mu leer ñu ne ñu woo ko téléphone gars yi woo ko téléphone jotuñu ko benn téléphone bi di sonné beneen numéro bi sonewul mais benn bi sone na tigo bi sone na mu bañ a jël ñu ne ah woo nañ ko jot nañ ko de waa ji ne ah man du ma mun a maye comme xamuñu ñaata jabar la yor da ngeen may wax ñaata jabar la yor ma may ko soxna su ngeen ma ko waxul du ma ko mun a may soxna comme mu ngi dund nag soriwut woo leen ko téléphone ba ngeen jot ko waaw ndax man sama diina li ma sant li ma alxuraan ak sunna wax mooy góor ñeenti soxna lay am boppalee ñeent mu ngi njaaloo nekkatul ci diine ah gars yi daal di ñibbi bàyyi fa guro gi ne ñu ngay leerlu ji waaye ba tey jii kenn wowu ma guro ga moom ma nga fa waaye ji nee na ma guro gaa ngi fi bàyyi nañ ko fi ba mbir mi leer waaye man kenn wowu ma boobu ba léegi dama nag takk nañ sëy bi kon waa ji ñaata jabar la yor 16 jabar fu nit jëm ak moom am na koo xam ne 80 jabar la yor 80. 80 ki mu takkoon xamul lan la moo ma woo téléphone États-Unis di ma ko wax ndax ndaw si ba takku ndaw si nee na keroog bi ma ñëwee këram nekk ak moom bay ñibbi photo ak moom pour wane na sama jëkkër la ma dem dugal ko sama Facebook mu ne dëkk bi yëpp dañ maa woo ne ma yow de xamoo ci li nga dugg ki am ñi ñii ne ma am na téeméer ñii ne ma am na 80 ñii ne ma 60 ñii ne ma 70 ñii ne ma 79 kon ñaata la kon kooku moom xam nga kenn laam-laamewul ay ay 20 am passé na 20 bu yàgg léegi nag lan mooy problème bi mooy yow nga ne gëm nga yàlla gëm nga yonent ba pare nga dépassé fi la yàllaa ko yonent bi wax yemal nga dépassé ko ba pare yow nga ni gëm nga yàlla gëm nga yonent waaw loolu mooy wax bi nga ni gëm nga yàlla gëm nga yonent ñu ne da ngaa war a julli nga ne déedéet man ko du ma julli gëm nga yàlla gëm nga yonent da ngaa war a woor nga ni man du ma woor gëm nga yàlla gëm nga yonent da ngaa war a génn asax nga ni man du ma génn asax gëm nga yàlla gëm nga yonent da ngaa war a aj maak nga ni maaka jarta dem léegi ana ana gëm gi ngay woote dañ gëm nga yàlla ak yonent luy màndarga buy wane ne yow gëm nga yàlla gëm nga yonent bi li ngay wax noonu anamu fan la feeñ ci sa dund ah loolu mooy sunu problème mbokk yi tey ji Sénégal problème bi ñu am mesure bi gën a rëy mooy sori téere yàllaa ko bi yonent ba pare di wax ne ay jullit lañ te jullit du waxu kese ay jëf la mu ne atte kenn du ko def lu dul ci téere yàlla ak yonentam wa man kaana yaxkumu bihima ak képp koo xam ne da ngay atte mu ne ci lii nga war a atte faman haakama ila gayrihima faqad tajaawaza bihi hadduhu képp ku atte ci leneen lu dul lii yow jalgati nga jéggi nga dayo xëtt nga frontière bi yàlla waxoon ne wala wala taataduha wa man yataadda hudud allah faqad zalama nafsa kenn warul jalgati frontière yàlla kenn warul xët li yàlla wax mu ne wa xuruju amma sharaahu llahu wa rasuluhu képp koo xam ne attewoo nga leneen lu dul yàlla li mu wax yow génn nga ci yoon woowu yàlla rëdd léegi nag mbokk yi su yàlla nee jullit ñeenti soxna la war a am yow nga am 17 yow génn nga ci li yàlla wax wala yaa ngi ci su yàlla waxee dañoo war a julli yow nga ni julli woo yaa ngi ci li yàlla wax wala nekkoo ci ah waaw kon léegi nu ñuy def nañ natt suñuy bopp na natt suñu bopp ci yàlla li mu ñu da rëddal ndax nu ngi ci wala nekkuñ ci ku nekk da ngay natt sa bopp da ngay jël sa bopp ba ci téere yàlla bi nga xool waaw man ndax téere bi amul lon lu muy tere te man defuma ko nga xool ndax yow yaa ngi ci alxuraan ak sunna wala nekkoo ci ndax nee nañ képp koo xam ne da ngaa jalgati génn nga ci képp koo xam ne da nga def leneen lu dul loolu wàccee nga ko wàccuwaay boo xam ne laa yastahiquha wàccee nga alquran ak sunna beneen wàccuwaay bu dul bi ko yàlla wàccee wa kazalika man abada shay'an min dunillah man abada shay'an duna allahi fa innama abada taaxut képp ku jaamu leneen lu dul yàlla jaamu nga xërëm jaamu nag xam ngeen ko ñu bari dañ yaakaar ne baatub jaamu li muy tekki rek mooy julli ñu bari ci ñun loolu la fekk xamuñ ne jaamu ah li kulli ma yuhibbuhu llah wa yarda min al aqwal wal afal wal amal al zahira jaamu mooy nga def nga defal nit li nga waroon defal yàlla nga defal ko nit mën na nekk wax mën na nekk jëf mën na nekk lu feeñ mën na nekk lu nëbb li yàlla moom saa yoo ko defalee nit jaamu nga nit kooku saa yoo toroxloo nit jaamu nga ko saa yoo màggalee nit comme ni nga war a màggale yàlla jaamu nga nit kooku saa yu la nit ki digalee lu araam nga def ko jaamu nga nit kooku saa yu la nit ki teree lu baax nga bàyyi ko jaamu nga nit kooku ku la bàyyiloo julli nga topp ko jaamu nga ko ku la bàyyiloo woor nga topp ko jaamu nga ko ku la bàyyiloo ku la ku la bàyyiloo dem màkk nga bàyyi ko jaamu nga kooku ak koo mën a doon ndax kooku nga déggal déggaloo yàlla déggaloo yonent bi ndax boo déggaloon yàllaa ko yonent kon doo def loolu mbokki julit yi fa in kaana almaabudu saalihan saarat ibadat mu ne même kooku nga xam ne moo la digal loolu nga def su fekkee ku baax la léegi nag foofu la nekk nag mujj naa nekk nag jaamu léegi waaw fa in kaana almaabudu saalihan bu fekkee ki ngay jaamu ku baax la mu ne saarat ibada mujj naa nekk loolu ngay def léegi ak jaamu waaye mujj naa nekk loolu nga def delloo nga ko ci seytaan seytaane mi nga xam ne moom la la yàlla waxoon bul ko topp kon mbir yi mbir yu sew la mbir yu jara taxaw la mbir yu jara jàng la mbir yu dara mbir yu jara settantal la bu baax ba nga xam ba nga ràññee nga xam fi ngay teg sa tànk nga doog a dem waruñu ànd ak mbooloo mi rek di xuus di dem waruñu nekk ñoo xam ne dañuy làmbatu rek di dem suñu diine dañ ko war a jële ci lu leer suñu pas-pas dañoo war a fas lu wir moo xam ne bu ko alxuraan ak sunna di xool suñ ko doon peese buñ jëlee benn bi teg ci balance jël leneen teg ci balance lépp dafay mat waaye ngay wax loo xam ne bés bu nekk nit ñi di la gis ngay wax wala ngay jëf loo xam ne dafa wuuteeg téere yàlla bi te ngay ngay ngay rey làmmiñ guddi gi nekk naan man jullit laa man jullit laa te ku la xool ci kaw ba ci suuf du gis di jullit loolu nañ ci yàlla nañ ci yàlla musal kon mbokk jullit yi loolu moo doon darsa tey ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu